asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi toog ak Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacke euh, yaakaar naa ku ñu waaye soo ba léegi ñuy partagé un milliard yi nga xamante ne bi ñu ngi koy dégg ci biir kër gi ñuy laaj ba xam loolu nan la demee. jërëjëf yi di xam ne nit ñi ñu ngi koy def ci réseaux sociaux yi te ndox waxoon naa feneen ci gannaaw li nit mën a yabaate ak lu nit di wax na ko jëmee ci àll ba bañ ko jëmee ci kilifa waaye diggante sëñ Muntaxa ak bokkam bi njabootu sëñ Tuubaa gi diggante sëñ Muntaxa ak taalibe yi jëmmi sëñ Muntaxa ci boppam la kenn wërtoo wax ci moom wax ju wérut joo tegul fenn sëñ Muntaxa dafa tëlul loolu loolu ay caaxaan la ay pola te koy fay nañ ko jëmee ci àll ba sëñ Muntaxa dafa tëlul loolu te diggam ak waa kër sëñ Tuubaa itam dund gi muy dund ak ñoom sëñ Tuubaa ay caaxaan da caa war dugg ay caaxaan ay ay fa waru caa duggul kenn waru caa wax lu loola leerut waxoon naa bu yàggut nag ne ku bàyyiwut di jële ay xabaar ci yoo xam ne yoo wax ne ci kër mi ngi koy askanale te wérut bis da nga ci am bis bu mett ci yow te boobaa yaa ko yóbbee sa bopp lu nit di wax sëñ bi na ko xam bu ko xamul na noppi sëñ bi ci dëgg lay dox ci Pastef lay dox sëñ ci sëñ Tuubaa lay dox ku àndal ci loolu lay ànd ak yow sëriñ Cheikh Saliou bu am mille milliards bu ko amoon na ko jox ngir sëñ boobaa du ñu ku ko xam du ko yéem du ñu yéem ndax ñoom sëñ Touba leen tax a jóg sëñ Touba la ñu liggéeyal luñ am ngir sëñ Touba te nañ ko delloo ci sëñ Touba waaye jërul ñu di ci yàkkam di bari ci sos lu amut nañ ci génn te bàyyi wax ji dara du ci dëgg amut. waaw jërëjëf Mbacke kon mbokk yi ñoo déggandoo kàddu yooyu xam tukkee na ci Serigne Cheikh kon nag nañ ci gën a bàyyi xel rek say taaxirlu bu baax a baax ci liy jógee ci kilifa yi ci muy nekk lu weer jërë ngeen jëf